fu coow mën a nekk ci réew yi ci réew yi ñu nekk di Sénégal ak bitim ci mbooleem gox yi fasantikoo yi ñooy ñu baax te di la ziyaara te di la bëgg di nuyu borom ëtt bi di Touba Rasulullah di Cheikh Serigne Assane di suñu sëriñ di suñu lépp di ñaan yàlla mu yàgg ko lool tëwét di nuyu mbooleem kilifa kilifa aada yi ak képp koo xam ne yaa topp seen bi di ko saytu jamono bu nekk rawatina abonné yi rawatina ndam nga na seen Média TV yi ñun ñu leen siyaar am mbégte ak kontaan ci dafa yow jotaay mu dem jotaay boo xam ne jotaayu xam-xam jotaayu njëriñ rek lay doon ci xasida bi nga xam ne moom nga sàkk ndaw ñi muy xasida kun kaatiman bi birri wal buusaatana qasdan wa taalul jiila yaa mutaallim xasida boo xam ne xasida bu gàtt la ay way bayt jàpp naa ne ci juróom-ñaar juróom-ñett daf koy toll waaye làmboo njëriñ yoo xam ni bu ko nit ki déggee te jëfe ko dana ko jëriñ ak alaaxira moom la ñuy wax li arab bi wax bind mu néew te ëpp xam-xam bu baree bay njëriñ bu yaatoo yaat nga xam ni xas dëgg boo xam ni ndaw li bu ko xamee da koy ñaan téeméeri at mën naa la xasida ndax fu mu ci toll rek Sëriñ Tuubaa day wax ak moom ci addunaam waaye ni mu war a waajal it alaaxiraam ban comportement la war a amee ak ban jikko la war a amee ak gën gi war a nekk ci moom ba nga xam ni kenn du ko yëpp kenn du ko xeeb waaye bu des lépp ginnaaw xasida bi boo ko déggee it day tax nga xam li ko jar nga xam ni li ko jar rek ko jar. waaye lépp lu ko jarul dina téye ci sa diggante sa borom waaye si diggante ak àdduna li ci war a am moo la wax ni na nga alaaxira te mooy sa kërib bu mujj waaye nag bul fàtte ni yàlla mën na laa cëral ci àdduna te loolu jëm rek ak suñu ak ngor moo reen dayam koy taxaw mu mel ni Sëñ Tuubaa dafay tënk lu mel noonu ci xasida bi xasida bi seen saa président ko bindoon maam Thierno Birahim daana daaw boobu maam Thierno ñu ci gëstu xam-xam sëriñ bi bind mu jàng ko ci daara ji ndax boobu daara ji métti na lool te tar bind bi dañuy jamonoy tartar nga xam ne li nga bëgg lépp doo ko am te looy sàkk saa su ne jërë wàcc rek ak dëgër ne lu tax a jóg ko mën a ko ko xam ne bëgg nga dara ak ci lu mën a doon ni nga ko waxee léegi rek mu taallim mooy ku sàkk xam-xam élève bi mu ngi ci biir ndongo daara baa ngi ci biir kiy jàng métier bu mën a doon mu ngi ci biir ki def formation bu mën a doon sëriñ bi yore waxee ba ki wax entretien sëriñ bi yore waxee ki nekk armée bi yore waxee ba ki commerçant bi sëriñ bi yore waxee képp koo xam ne ñu si loolu si ko ci kun kaatiman mu ne nekkal koo xam ne da ngay nëbb li dërri say dara wal buusa ak say wenso mooy baatu alaf wenso yi maanaam tiis yi ak coono yi ak naqar yi suñ ci wàññi man ko nëbb ko ko dafa kenn xamal ne da dund sa biir nga xam ne yow lu jàng métier liggéey weer sa pétrole bi tëj ba sa loxo bu doon kenn xam yow ngay jàng xam-xam manquement yi ngay am di bëgg loo xam ne amoo ko sama rab yaa ngi sol daal yu rafet di yor portaal yu rafet di sañ sa mënoo koo am ndax ci jàng nga toll lu toll nii day tuut sëñ bi nee na coono yooyu ngay jànkanteel ak tiisoo ak lor yi na nga ko nëbb moo tax mu ne kun qaatilan di dirri wal buusaan nekkal ko xam ne dañoo nëbb say lor ak say tiis boo ko defee day taral xasdan da nga am sa jubluwaay tanal da nga am xasdan sa jubluwaay maanaam tanal da nga atteindre xasdan say objectif yi te waxtaan bi jiw la da nga kawe sa maas yaa mu taa andi ne di sàkk xam kuy wax bi mooy koy wër bayit bi sëriñ bi teg ci laa teg seen fa kun mutajallidan xataa tazunnu naasa annaka minhum nee na bu bëri ay jàmbat ak i détail ak i ñaxtu doy ndax jàmbat yu bari fa ñu soxla nit ki mun nga xamal la la ngay jàmbat taxul mu faju te mu mën saa yëpp mbaa ñu xeet la ca moo tax wala di wax ne ñàkk bi bëgg ak sa ngor ak sa tax mën la bul jàmbat dara fekk pour mu tëj dem nekkal di góor góorlu di def affaire di sagal sa bopp di sagal sa bopp xatta tajunni naasa ba nit ñi jàpp ni am na ko mën a am yow du ñàkk dara am na ko naka yow mën a am ku xéew la ku xéew mooy koo xam ne ñàkk dara hmm? te loolu lu tax lu am am solo nit ki dina jaar ci ay tartar ak i métti ak i coono dem ba yàlla génn ko ci mu nekk ci ak féex li mu bëgg lépp mu am ko te bu loolu war a am ko am ndax jamono bi ñu toll ci ay tàqal dund na situation yoo xam ne saa yëpp la saa yëpp boo xam ne bàyyi na classe boo xam ne kenn du ko fàtte moo tax gàcce la ci nit ki yëpp ay coono wala ay tawat wala ay tiis xam ne yaa ngi sàkk da ngay sàkk te bëgg fa amadoo ko jafe-jafe gàcce la doon ci yow nga yéex ba ñëpp dégg la ndax ëllëg bu ba téye ko ndam la dafay des jàmbaar dëgg mooy koo xam ne day muñ ci jamono ba tere day am lu bëgg ndax at bi moom dara yëngu ndax sëñ bu bëree détail ak i jàmbat ak i ñaxtu nekk ci li la war a tey góorgóorlu ba nit ñi ñu jàpp ne yow ñàkk ko dara te fekk boobu mu la waaye yow yaakaar nga bëgg نفل عنه لا يعطى لمن يقسى طواه بل ربنا عبدا صبورا ينعم سنتي يعني خم خم bokkatu yàlla dafa ko xam-xam koo xam ne saa bu sonnee bàyyi saa bu sonnee bàyyi yàlla du am xam-xam te mën naa la yoon sax barke xam-xam ndax barke daal di dugg ci mën loo mën ak tawat la xam ne boo nekk ci sa ba wàcc ñibbi du leen gën te bu bu see bu xëyee bu subaa bi bu da nga jàng say leçon ba wàcc loo jënd reer sax doo ko te du bu tee bu subaa nga dem nekk nag wàcc nga xam ne doo ko bàyyi lépp naan la nga wuti ab dërëm si jamono da ngay sàkk xam-xam da ngay sàkk ci lu mu mën a ko ndax xam-xam dafa fiir xam-xam dafa fiir suñu diwaan yi wax ko bi mais boo ko joxee sa nit ku dina def daraam waaye bu xam-xam yaa ngi nekk sa nit war koo tardé yow ngir nekk dugg sa bopp war a bi te seen ba teg ci ne daawul ala darsil ulum mutaalian sax ci nafar say leçon élève bi daawul saxal ala darsi bi ulum di takraar li nga jàng bu dem daara bi ñu la bind bu tooy ñu ne war a tekk tekk tere sëriñ bu jeex nga teg doon teg sëriñ yi nga xam ne bu jeex sëriñ la sab bi bu ak métti nga sax ci di fàttaliku ak di xalaat di gën a fóotee sa xel ci métti li nekk mu taali am daawum ala basira léegi mu taali am mooy nga di wér ko di moo xam mécanique ngay def waaw waaw moo xam mécanique ngay mécanique ngay def moo xam keneen ngay def dégg nga ak loolu man di di di jàlle loolu mooy nañ ci maanaam lu ëpp ci sa temps na ko def loolu bu dee ay kay teel lay lay tiim tiim ko nga xool ko bu dee loo gëstu def xool ko xam te waxtaan ak ne ngay jàng ngir dolli ko ci xam-xam waaye du topp WhatsApp ba TikTok bi ba quatre heures du matin nga door a nelaw boo xëyee war a jàng dem di di di di nelaw doo am njëriñ du ko def loolu wax bi loolu soo mu ne la nga sax ci nafar la nga jàng te di ko gëstu nag di ko fàttali ko saa su ne daal ca tegu rek yaa ngi wax tamit suñu muttawaay ko jëm jëm ñun naa cam soo xam ne nit koo xam ne dafay dëgg dëgg ngir xiif waaw saa bu xiifee rek bokkutul saa bu ñàkkee rek bokkutul saa bu sonn bokkutul foo mu ñàkk gën a doon ñun moom ci ci ñàkk a doon rek dara yëngu. ñoom tali boobu daanaka moom mu teg te ni laa tastaxil bi risqi iz rabbul wara mutakassirin rizqa allazi yataallamu bu soxla woo xaalis wërsëg moment bi ñuy jàng métti moment bi ñuy jàng xam-xam moment bi ñuy def entretien moment bi ñuy def formation maanaam bu soxla poche 10 déedéet is rabbul waraa ngir yàlla mi nga xam ne mooy borom mu ngi fi mutakaffidun risqa allazi yata'allamu kii jàng di jëm sa poos yàlla moo la ko wax lu du jàpp ne kenn kenn kenn kenn raw na kenn raw na nit ma nga laa njëkk jub njëkk laa lijjanti ba am lu mu dajale waaye yow mi nekk ci jàng te jëm ko te nekk ci bi su amee xam-xam bi mën ko wane yéen ca jànkuwanteel ba am ca barke ku la rawoon boo liggéey duñ ko raw ba yëg ko moo tax ñaari foo fekk borom xam-xam ak borom doole borom xam-xam moo ñu ma la wax mu gën a gën a gis ay mbagg foofu ëpp lay at foofu yéen la daan daan ba jot a soog yow nga dund da ngay jàng ba mel noonu ci la mel hmm? waaw moo tax door bi bu ñu ci lekkee def soxla xaalis te xam ne suñu borom moo la wër wër sa wërsëg ci saa boo noppee ci li ngay def suñ tubaa teg ci beneen bayt wax sa ilaahi bi diinihi mutaxaafizan is laa yanaalu al maasi al mujrimu bay bu am mu ngi na nga ragal yàlla wax sam ilaahi mu nga ragal buur bi yàlla bi diine yi mu ko xaafisam te na nga sàmmante diinal islam li di islam sant maa ngi koy def islaayi naa doon al maasir mujrima xanaa xamoo ne kuy may yàlla du am xam-xam maasir mujrima ab maykat ak kattoor ab maykat ak kattoor sëriñ bi noonu du am xam-xam boo guddee tamit doo am barke doo am njëriñ yàlla mën na la fay bàyyi waaye doo am njëriñ doo sa nit gàtt moo tax yow ñu bëgg dara di commerçant yow ñu chauffeur bi ragal yàlla te am diina waaye du du yàlla bëri na chauffeur soo xam ne oto bi ñu paan ñoo mën naa liggéey ca dama jàpp fekk ba yàllaa ko war mooy yàlla day yàq mbir am na ñoo xam ne ku leen jox sa oto balaa weer bi def ci accident mbaa ci dépanne ngay dëkk ndax setul ñoo ba tax taxaw butig bu mag xëy xëy daanu ba yàllaa tax dafa yàq mbir gis ko dugal ci business buntu bi ubbee ko si ko mu xëy xëy ñu ne ko kàpp kaso bi tëj mbaa ay mbir yëpp tax mu yàlla mu yàlla def looy jàng xam-xam xëy xëy sa bopp tudd mënatoo xam dara exemple boo def doo jàll moo yàlla tax soo foog sa bopp yàlla moom bu nawet bi nag laa yughayyiru maa bi qawmin hattaa yughayyiru maa bi anfusihim amul benn intérêt ci xam nga dara loolu ñàkk ci ñaawteelu xoolal ma tax na nga te bi te xam ne mooy yàlla ak kàccoor mooy tooñ noggatu nit jël alal jàmm boo koy def doo am mukk xam-xam doo am is laa yanaaluna an maasi mujrimin danga si sàll sëñ Tuubaa teg ci naa il kawaayida wal gawaamiya تبن منها مردا لا تسلم ما يسلم القواعد جنتج والغوالي أك جيج نعم المهم القواعد mooy ki nga xam ne muy dégg mesure waaw jigéen bi dégg mesure ay cëram tàmbalee génn day def di yëg li muy wax nga xam ne bu la wanee kanam seytaan dafa wax ci kanam bi maanaam day tàpp ci kanam bi day am ci ginnaaw yaa nga xam ne day fas tënk seytaan moom it day jàpp ne dara tëye ko téye Sénégal yi jàpp na ne ñëpp a koy bàyyi xel ñëpp a koy xel ñëpp a ko nag suñ ci bàyyi ne yooyu ñu bëgg xam-xam yooyu noonu nga daara bi leer nga yor leer nga yor te leer am tëb la yooyu ñun jàng nit ki bëgg ci bàkke moytu toog jant boobu yow commerçant bi moytu toog yooyu ministère bi moytu toog am dañ lay xam nga tax day fay say lam te ci yem day yàq sa réputation nga am way yoo xam ne du fay bu ko ni nga xam ne bii yow saa di nga xam ne yow jaar nga fi jaar nga fi. xawaaxi ja moo tax ñu ci jigéen ñi dafa sori jant bi wala xawaa mu yor ak jéeg mooy ki sëy ba noppi ba xam li xew ñu ngi ko noppi boobu moo gën a danger yàlla bu mu doon ki sëy ba tas maanaam très attention ci loolu waxtazil te ngay bor moo lay sori looy sotti moom li ci ëpp may farata ku nar a xam sa bopp xam na nga sëñ bi da ngay gis koo xam ne day door a jàng métti boo duggee seen kër seen seen situation kër demee noonu te saafara da koy def ci kër gi lu muy xale jigéen nga koy def waaw nga xam ne ndaw sax nga nekk nga xam ne ñoom mën nga dëgg man grand demande téléphone bi soo koy def di ko jëndal bi di ko defal lépp te sa yaay soxla na du franc bu ñu demee natt maa ngi fay rek du ko am loolu yëpp ñun léegi kon moo tax day jël yow élève bi amoo ko dara boo war a jëlee ci ci niveau bi di ko lire moom ngay jox xale jigéen yow doo ko daara bi nag moom kasaali moo tax na nga leen sori suñ ko waa teg ci ni une tonne la mën a xaar bu war a gën laa tas la moom bant bi ak jeeg bi boo leen a jigéen moo leen ci ñoom doo mucc mukk seen alkande doo ci alkande alkande mooy yàlla seen i pexe jàppal ndax inna kaydakunna ay pexe dafa màgg lool nga xam ci ñoom rek nga xam fi lay yóbbu yëpp mën a bi nga muuru boo xoolee loxo jigéen ñi ci biir waaw donc loo fi gis mën na muuru loxo jigéen ñi ci biir Balham ibnu Bahura nit yàlla yooyu Seydina Yuusufa alayhi salaam yàlla ko ci dimbali yàlla moo ko ci dimbali waaye kon cër gën waaye suñu borom sol na ci xolam leer fàttali ko boppam waaye jigéen mooy fiiru seytaan bi nga xam ne du cërëb bu mukk soow du cërëb bu mukk soow moo tax boo yoree dara bëgg dara da nga la mën a ji in tajri minha muradan laa waxee boo yoree fréquenté di leen bàyyi xel katiman li dóore wal